ausbillahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Touba barke borom Touba jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan wala ngeen ñuy déglu ci Afia FM 93 point 0 wala ngeen ñuy bàyyi xel ci 3w afia fm point com wala ngeen ñuy bàyyi xel ci 3w afia fm point net fu mu ci mën a doon rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel bu baax di wax ni ñi ngi fii tey ci fi nga xamante ni moom moo di Touba Touba nag euh, ñu ngi fi tey ngir euh, maanaam xamale leen fi nga xamante ni moom moo di fii ci euh, daare Serigne bu Mbacké gannaaw boo xamante ni ñu ngi ànd ak sunu ndijaay Serigne Fallou Ndiaye Jazaaka ak ki nga xamante ni moom moo di Serigne Mbacké Jaxate nekk fii ci daaray Serigne Souhaïbou Mbacké gannaaw loolu nag dañuy jox sunu ndijaay Serigne Fallou Ndiaye Jazaaka mu ubbi liggéey bi macha allah. ñu daal di dalal ki nga xamante ni mooy Serigne Mbacke Diakhaté Serigne Fall bisimilah. Euh, ahousu billahi min acheytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidi alxalq sayyidina muhammadin sallallahu alayhi euh, kilifa gi ci siyaar boobu nu tàmbalee ko ci fadilatu cheikh Mouhamadul Mountakha xam ne moo fi toogi jataayu cheikh na Ahmadul bi ak njabootu Serigne Touba gépp ci góor jigéen di ñaan sunu borom bi subhaanahu wa taala mu gën ko taxawu te eh, dimbali nu dimbali ko ba mu eggalee liggéey bi ba def ci lu kawe njortam eh, ak cheikh yi sëriñ Tuubaa yëpp ni mu ko waxee eh, noo ngi ziar kilifa ak barab bi di sëriñ Cheikh Mbacké sony bu muy sëriñ Cheikh Say ak njaboot sëriñ sony bu gi yëpp ñu ngi leen di ziar di leen nuyu ziar bi nag mel ne jataay bi sëñ Mahamadan moom moo moonu ko baaxee buso boole noog sëñ Mbacké jaxate mi xam ne ci daara ji la nekk di produit daara ji ba noppi di produire ci daara ji maam di di di di génne ci daara ji nekk waaye génnul ci daara ji nekk ci daara ji di jàngale. te mel ne eh, ah, ñëw am am am na ay xalaat yoo xam ne dañu ne eh, Cheikh eh, Seydina Mouhamadin sallallahu alayhi wa sallam nee na ki gën ci yéen mooy ñi jàng alxuraan ba noppi di ko jàngale wala ñi jàng alxuraan di ko jàng jàngale xayrukum man taallama alxuraana wa allama mel ne loolu firnde la ci mel ne jataay bi fii nu nekk muy kër sëriñ Abo Mbàkke sooy bu sëñ sooy bu ibni Cheikhina Ahmadul Xadim mel ne li ñuy laaj sëñ Mbàkke xam naa ne mooy ci saabal daara ji waa euh, fi daara ji kii ak ki fi nekkoon ku baax ki ndax moo fi doon jàngaleel boppam ndax dafay ñëwoon rek ndax dafay jaaroon jàll wala dafay dëkkoon muy daaraam ak it euh, gannaaw bi euh, nan la dikkee ba tàbbiwaat ci loxoy sëriñ sooy bu ak liggéey bi nga xam ne moom la ñu fiy gis te muy lu tumuranke ci jamono mais nag dafa mel ne boo fi duggee rek yëg-yëg mi ngay jëkk am mooy sam xel li muy jëpp jëkk jàpp mooy Serigne Touba ngi ci biir mooy jàngal nit ñi kon loolu sëñ Mbàkke noo ngi lay ziar di nga nuyoo ba noppi daal di tàmbali ci eh, laaj yeeg tontu yi incha allah sëñ Mbàkke Jaxate asalaamaaleykum rahmatullah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam Ah, jërë ngeen jëf ah, ci jéego yu dox sëñ Fallou ak sa jabaat bi nga àndal waaw ah, sëñ sëñ Ousseynou Thiam ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaara di wax ne ni ngeen def lu am solo la ndax dana tax ñu xamutoon xam ci ñu xamoon tam dolli ko ci gën ci takkaa seen laxasaay ndax doomu aadama la yàlla bind noonu léeg-léeg min dara ba xaw ko fàtte waaw bi nga ko waxaatee rek xolam nga dundaat ci lu baax ndax lu baax moom ñëpp ko bëgg kon li nga def liggéey bu rëy la muy ñëw fii ci daara ji daara suñu soxee bu ci ndigalu bi ñëwee jaar ngeen fi ko a jaar te alxuraan la wax mbir mi ni ko jaar ni ko jaar fi a jaar ci buntu ba waatul bi tey def ngeen ko jaar ngeen ci ki xam mooy Serigne Cheikh Oumar Mbacke ci xalifa suñu soxee ba mu jox leen ci ndigal boo leen a jëwriñ daara ji Mamadou Bousso moom itam mu boole boolewaat ñu ak yéen kon ñu fas yéene ginnaaw bu ñu nuyoo daal mbokk julli yëpp mbokk taalibe yëpp ziar leen ñaan suñu borom def leen xéewal ak mucc barkeb Sëñ Tuubaa ñu fas yéene delloo kàddu gi fas yéene digul laaj luñ luñ sa xam rek ñu tontu ko dañ ci képp kàttan bi ak képp Sëñ mooy Sëñ Mbàkke maanaam daara ji eh, num cosaanoo ak ak ak ku ko ku ko wubbi woon tàmbalee fi di jàngale ba léegi incha allah waaw jërëjëf Sëñ Fallu laaj nga laaj bu am solo ndax mbir ba nga koo xam nga xam cosaan la daal arab bi dañ ne boo xamul cosaan doo xam farxu boo xamul aslu doo xam farxu farxu mooy aslu mooy cosaan kon laaj nga am solo daara ji Serigne Souhaïbou Mbacké di doom Cheikhul Khadim moo ko moo taxawal waaye nag ci ndigal Serigne Touba ndax dañuy wax ne keroog bi mu bindee kaamil ba àgg mu ànd ak nijaayam sëñ Sodi Jaxate xam nga wajur soxna Rame Jaxate ña bokk lépp. sëñ Sodi it sëñ Tuubaa joxoon ko joxoon ko sëñ Blaat ak sëñ Soye ak sëñ Saliou ak sëñ Soxna nag joxuma la njaboot gi ngir liñ liñ baaxoo maanaam jox nit ay nijaayam déedéet dama laa yar def defar la te li ma def ci yàqu ko moo tax ma bëgg nga nga yaral ma leen jàngal leen taxaw leen seen soo tamit dafa def ci liggéey bu rëy jàngal leen bin bin kaamil mokkal keroog bi sëñ Saliou bu indee kaamilam fekk si moo njëkk a indi kaamilam ndax si moo féete mag mu sëñ Saliou yaakaar ñu njëkk indi ginnaaw bi sëñ Saliou indi kaamilam ànd ak sëñ si jaxate keroog sëñ bi neen wax ko yendoo ci njëriñam keroog nee na maanaam eh, sëñ bi taxoon naa moom daanaka maanaam bis bépp moom mel mel na kuy def si moom di def ci daal wax nañ keroog maam yel eh, yel na ko ay gaal du ko dugal ci kees yóbbu ci yeneen kees Eh, yéen kaa yoo xam ne da ko doxal ci yéen nekk bi jiitu sëñ bi jiitu mu dox bu nee na sëñ booba léegi day dox jàgg damay réer ci biir kees sax ndax sëñ bi dox bi daa gaaw kaar kaar te buy dox du gees bu defee yàgg bu geesu jëmm ji sëñ tuwaa buy bu geesu jëmm jëpp mooy tourné waaye du geesu ni dee jëmm jëpp maanaam mag jul jul fa war a jul noonu moom noonu la tourné moom jëmm jëpp buy tourné moom nee na ba mu geesoo nag jëmm jëpp tourné ne ko sooy bu wa waaxu sil fekk da ko da ko réer ci biir kii bi nee na mu waa di waaxu si dama dañuy nodd xaa ngi nodd daanu wala dañuy mën a continuer waat kon jur tàmbali waat waaw kon fi fi tolloon bi ñu rek nodd gi taxoon ñu taggoon ko ndax kat loolu moom sëñ Tuubaa lool la ñu digal biñ doon nodd na ngeen tekk ba lépp nodd daanu ñu doog waxaat leneen te kër gi itam noonu la ñu yore moo tax moo tax ñu dagoon waxtaan wi ak kon dañuy sof fi ñu tolloon rek dañoo xam ne bis boobu suñ la tax daa taxaw moom moom suñu soowee ba di ko defaloo ay kii daal liggéey ne yelanloo ay ay gaal di ko bi ci di ko ci kees di ko ci keneen kees wala néeg di yëpp ci beneen néeg nee na ku baax ki ndox bi daa gaaw kaar kaar day eh, nag dafa bu waaxusil <laughs> mbaa du waaxusi ba mu ñëwee ba bëgg mu teg ko tegal nee nag wax ne ko booy tegat deel wax bisimilah nee mu teg ne am yoon boo xam daa daa teg fàtte wax bisimilah mais ko waxuma loon loo waxate deel wax bisimilah loolu la wax bisimilah ase ase mu fowaat mu ko tegal mu teg mu mu teg <laughs> mu toq moom noonu rek ne ko looy def day wax bisimilah anu maa doon <laughs> kon noonu la ko doon kii taxaw moom bis boobu wax wax ko rek tam ne ko booy toogati di di di mu toog mbokk jul penku suñu bokk digaloon ne ko tam bàyyi sa bopp sa bopp sa bopp mbokk muy muy muy saq waaw bala ngaa saq ne na nga ko wat kon daal noonu ko daan <laughs> waaw wax nañ ne bis eh, jox na jox na ko fa yére ataaya ak baraada kaas daal ne ko xam nga noo jubloo si sët ne ko ah Mbàkke xanaa xam ne dana baax mu ko ah dama nga xam teraanga te fonkol ma alxuraan kon digal la la jóge Sëñ Tuubaa moo tax moom lii Sëñ Tuubaa ko digal waaw mu def ci liggéey bu rëy nag boo xam ne man damay faral di wax ne wax naa ko ba tey mboolem ñu fi ñëw ñëpp di eh, télé yeeg rajo yi ndax fii daanga ñëpp ñëw rajo bi ñëw na fi donc loolu ma ko faral loo xam ne dama leen suñu son bi day bu ko suñ tuba jurutoon sax lim liggéeyal suñu borom ci alxuraan rek mën na mën naa ram aw xeet <laughs> awat nam cër bu suñu tuba suñu tuba moom jur la fa la maxaa mën a yem waaye liggéeyal na suñu xam nii mën naa ram aw xeet liggéey bu rëy la ko ci liggéeyal wax nañ ne daara ji 1948 wala 49 benn la ko ci sos kon lee mu kon ju ñaar fukki at moom <laughs> day ma mat 48 wala 49 xanaa doomam suñu Cheikh Say la fi njëkk dalal ak suñu Cheikh naam suñu Abibu mu taw suñu Abibu mu suñu mu suñu Abibu Mbacke imaam xanaa ak suñu Soybu Fall mu suñu mu sa Moussa mu Cheikh Fall xam nga suñu Soybu Fall suñu Moussa Fall la ko tuddoon suñu jox ko kon daara jo cosaan la mën naa tam ne moom moom ci boppam nag moom ci boppam moo daan jàngale boppam waaw ci boppam waaw mu daan defal moo daan jàngale boppam xëy toog ci gone di jàngale bind di téele di topp alluwa lépp moo daan defal boppam nga xam ko ñoom kilifa yooyu yëpp ñu ñu ñu ko jàngal mooy jàngal boppam ñu toppaat ñu toppaat ba ne dem mag gi dikk wala wala wala boog adduna eh, dëgmal ko yenn dëgmal xëy na yaram maytu ko yenn yi ndax jàngale tam ab diggante la day metti waaye téewal mu toog ci loxo yi wér loxo sëñ tan busa mi ak sëñ Abdoulaye Jaxate waaye teewul na moo ko daan seetal boppam nag waaw kon ba tey moom moo ko seetal boppam waaye liggéey maanaam jàng kii njëkkee moom mooy njàngal boppam nga xam ne mën naa la seblaat boo ci génnee sëñ siidi mi taw ba ñëpp fi lañ fi lañ jànge ñoom ñëpp sëñ Moussa Abdoulaye ak ñoom sëñ Cheikh Moussa Abdoulaye sëñ Abdoulaye sëñ Abdoulaye daal comme jur ko ne rek sëñ siidi boo ci génnee sëñ siidi rek sëñ siidi moo fi jàngewul waaye ñi yëpp lañ jànge na booba day fekk suñu jiitu ba boo xëy na boo day fekk boo daal sosagul moo tax xam naa moo tax ndax suñu jiitu xam nga moom mooy mag ñii waaye moo naan la bu ci génnee suñu jiitu ñoom ñëpp fi lañ jànge ci daara waaw suñu dan day wax ne suñu dan siblaat wax na ko ci wax na ko fi bas sermon officiel ñëpp yi dégg mu ne siblaat da ko wax ne ko Mouhamadou day yéen lu dul jur def def ma ko ci yéen li lépp suñu moo ko def ci moo leen jàngal moo leen def ci yéen lépp nga dem ko Seydou Khadir moom tam boo ci génnee suñu muudu may taw ba ñu si ñëpp fi la fi leen jaar suñu seex mi xalifa tey ñii suñu saabu xaadir suñu jiite ko rek xiit tabaski kor yi julli xiit yi suñu fàllu xaadir ñoom ñëpp ba suñu bés ba xaadir mi caatu si xaadir ci góor ñi ñoom ñëpp fi leen jàng dégg nga suñu daan dafa faral ne suñu daan bu dafa faral di wax ne maanaam doy na ci doy na gàtt liggéey suñu sooy ko rek suñu taxaw mi nga xam ne fi mu toll nii mooy mooy xalifa bi man ma nekk Sëñ Tuubaa ki ki koy ji ki koy ji jiite julli ko it mu suñu fël si waxaat fi la génne ki mu tax kàddoom ma koy waxal mu suñu waxaat fi la génne suñu tas na ko faral di wax kon ñaar ñooñu rek dana ci liggéey suñu soxew <laughs> te wax na dëgg loolu daa ëmb lépp waaw ah, kay waxal kay kàddoom fi lañ génne waaw <laughs> kon nag loolu rek dana ci liggéey suñ suñu soxew nga dem ko si Mourtala moom tam noonu ñëpp daa ko ñu bëri fi lañ jànge ci ay doomam nga dem ko suñu fàllu si Abdou Rafa mu suñu fàllu ñëpp daal ñu bëri fi lañ génne suñ Modou Lo Ngaabu moom tam ñëpp fi fi lañ génne suñ Modou Kimaan ñoom monsieur Abdoulaye Bom bi suñ Modou Abib mi xam te mooy mooy xalif Abdoulaye Bom dër bi ak ay rakam suñ siide ñoom suñ Matar ñëpp fi lañ jàng ak suñ Modou Kimaan monsieur Abdoulaye Bom dër bi mm-hmm. bu dee bu dee dem suñu yu jigéen yi seen doom ku ci mel ne suñ Modou Mafous soxna May moom tam fi la jàng si Modou Lo nga wax na ko léegi mu mosoon mosuli mu Sëñ Tuubaa waaw moo tax fi la fi xam daal kon doomi Sëñ Tuubaa yi ñu mbokkal Sëñ Tuubaa dañ ko delloo woon ci seen doom ngir mu yar leen dégg nga nga xam ñëpp dañu ko delloo woon ci jàngal jàngal seen doom yi yar leen doyloo ko ci moom tam mu def ci liggéey bu rëy boo xam tey wax yàlla ñim defar ah tey day fu taxaw ci yoon wi ràññ ko nañ fa ci xam-xam ci jikko ci diine ci lépp tey mu royukaay lañ fu ñu jaar ñoo xam ne ñii am fi leen jaarale ñëpp naw leen ci lépp nag loolu kon kon defar suñu ba allah <laughs> macha allah jërëjëf mbokk yi ñuy bàyyi xel seen rajo Afia FM seetaan ci euh, Afia TV ñu ngi leen di ndokkeelaat bu baax di fàttali ñu ngi fii ci euh, daaray Serigne Souhaïbou bu Mbàkke moom Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mu mel ni tey ñu ngi seq ak Serigne Euh, mahmadan sëriñ sëriñ Mbàkke jaxate la ñu seqal waxtaan waaye nag jaarale ko ci ki nga xamante ni moom mooy njiital daara ji muy sëriñ mahmadan busa euh, daanaka sëñ fàllu mu mel ni dégg nga kàddu yi nga xamante ni moom la sëriñ euh, bi wax sëñ bi jaxate wax lan nga ciy dolli waaw xam naa ne liñ ci jàngate ci biir mooy daanaka ñi lim ñëpp daanaka boo ko xoolee ñoom ñëpp ay ay imaam lañ Ahmadou Rafaay mooy jiite ay magam ca Ndindi sëñ Moustapha Abdou Khadir mooy jiite waa Ndakaaru Masaalikul Jinaan maanaam ñi fi produit yi fi jógee yëpp ay imam lañ loolu ab tegtal la ci man kay xanaa li ci kii mooy maanaam euh, ndongo yi nga xam ne fekk nañ leen fi maanaam ku xas dal boo fer ijji ñaata at bu ko fi amee incha allah bu ko yàlla defalee tawfeex rek dal na daane mën a euh, tari waaw jërëjëf sëñ Fallou maam comme loolu daa day daa su topp ci li waxoon rek ndax xam nga kon xam nga xam nañ xam nañ aslu bi cosaan kon kon léegi da nga daa mën a xam far ba maam nga xam mbir mi faaw nga xam fa tàmbalee mooy tax kii diglu xam waxtaan fa mu jëm ak fa mu fa mu tàmbalee ak li ci yokkat dana ko xam bi nga xamee ne Serigne Souhaïbou maanaam yàlla dogal na mu liggéey liggéey bu rëy ci Alxuraan ba ñibbi àjjana ci 1991 boo léegi mu toog ci fan fan fan fan benn bàyyi fi taw bu mat taw di mm. xalifa bu mat xalifa muy sëriñ Cheikh Amadou Mbacke moom suñu sooyee ba di xalifa suñu sooyee ba yàlla suñu boobu yàggal may ko wér li olof wax mujj mujj wu puso mu réer ah, moom day mujj wu puso mu réer ndax man day mën naa cee lu bari ndax man day mel damaa dund ñaar yëpp dëgg la jàngee moo fi arxaan maa ngi jàngee arxaan njëriñam ba bind fa ñetti kaamil yoo xam ne xoolu ma ci benn dégg nga <laughs> ma ñëwee fii sama kayil bu njëkk suñu Cheikh man ma ma ànd ak suñu Cheikh ma boole ma ak ab taawam suñu laata suñu Cheikh say ñu bokk nekk jàng njëriñam ak suñu Moustapha suñu Cheikh njëkk suñu ne suñu ne di nga jox suñu sooyob suñu Cheikh ma ànd ak ñun ñëw fii jëbal ko suñu sooyob kayil njëkk bi waaw waaw ñu jëbal ko ko fii 1989 boobu mi ngi dund ñu jëbal ko kayil mu téye ñu fukki fan ma sëkk teraanga jooy defal nañu ko nag ci bernde bu ne waaw mu ngoog su ubbee li mu njëkk dañu laaj laaj ñu ñu dem nuyoo mu ñaar ñu toogaat fa fa ñu fa ñu fa ñu toogaloo ci kees ga. teraanga ju defal nañu ko fukki fan yooyu loolu rek <laughs> teral nañu ko dégg nga xam kon ñoom doom suñu tuwaay yi seen suñu tuwaay fa nga alxuraan ñoom di ko doon suñu tuwaay suñu tuwaay ku ma mu ko alxuraan daw li bale kenn daa wax ne sax daan daan daan daan yónni nit muy daw mu ko dee doxal da nga da nga diis ngir xa ngir xawaan ci suuf dina tax dégg nga <laughs> kon loolu wax nañ tam suñ tubaab masaan tëju xalwati yi na dafa diggoon boroom xam ne ay weer kenn kenn ko tëg bët danaan ku ñëw nee ko dama jàpp ba mu bu ñëwee dara gis saasa ba benn naar gànnaar daa waxoon ne man de li fekk ngi dund lu am ba nga sa alal kuy nay yaa xam ndax man saa ma soxla xaalis dem ci suñ tubaab jox ko keneen mu jox ma alal loolu xam ne na dund rek ma déwén du jeex kon ko am sa alal téyel ku nay téyel yaa xam dafi suñu tuwaa ngi dund daal may mën a bind man nafa naa tumurank ndax ñoom xam nañu suñu tuwaa li mu ci alxuraan <laughs> dégg nga boo ñëwee bind jox ko mu jox teranga joo xam ni ba déwén du jeex wax na gaar wax na ganaar boo xam loolu dégg nga wax nañ ne benn bis rek ci njëreem sëñ bi am ko doon jaay ay téere lépp la sëñ bi jënd te kooku kay bi yi mu yoroon moo matoon na jëm ñetti téeméer kamil 800 jëm ñetti téeméer kamil sëñ bi jënd lépp <laughs> kon kooku bëgg alxuraan fa la ma neem wax nañ tam ne seblaat nee kenn mësu gis sëñ Tuubaa loolu ko du ko xool wax waxtaan si daal da fekk kenn mësu gis sëñ Tuubaa nangu ci loxoom dara lu alxuraan lu koy mën a jox lu mu rëy rëy dana tegal foofu lu maa doon du ko loxoom du tegal foofu rek dégg nga waaye bu dee alxuraan mën bëri nangu ko loxoom da dënnam wut ay lal yoo xam ni lal jamono bu doon jamono jamono yii mooy lal yi gën a cher xam bu doon jamono million lay jar waaye daw daw toog waxuma tëdd tëdd nga jël waaye toog te daw ko ci def di ci lal ay mbàjj yu rafet yu cher di ci di ci di di di ci sotti sikki bi gën a di wax di wax naa ko yaakaar kër yi anta habibi wa xalili wa habibi yaakaar kër yi anta habibi wa wa xablu tabibi di ko di ko teral ndax arxaan suñu tubaab nee man alxuraan ci la àgg ci yàlla moo tax moo tax ñun kon ñun murid yi war nañu ko fonk lool waaw dafa xam ne alxuraan ci laa bokk ci di xëne yi ci laa bokk ci la yàlla moom alxuraan waaw xiraatuha kansi wa jaahi wa xissati unut biha kaw nii la dal laay saa si doxi laa ci laa ci di yi alxuraan ci la amee xel mu dal ci la sama xol sedd ci la àgg ci yàlla xaritu biha aynan walin nas tayyibat wasaltu biha lillahi zilfat ko war ratq ci la àgg ci kon nag kuy fonk alxuraan war a jiitu macha allah <laughs> jërëjëf sëñ Mbàkke mu mel ni ñu ngi ba léegi ci waxtaan wi nekk fii ci daara yi sëriñ Soy bu mu mel ni sëñ Mbàkke gis nañ ni daara ji bëri na ay tuut tànk tout tànk yi ndax euh, maanaam kuñ leen indil rek ngeen di jël ci daara ji wala dafa am ase boo xamante ni moom ngay am door a mën a tàmbalee eh, njàng njàngum alxuraan. waaw maanaam fii moom duñ jël ko amul juróom-ñaari at juróom-ñaari at mat ko. fekk matal ma ma dafa defal boppam lépp daal waaye xal boppam mënut boppam dafa defal dara ah kooku moom duñ ko jël. waaye nag mu amee daal juróom bu ñëwee ci ndigal suñu Cheikh Say dañ ko jël ci ndigal sëñ bi. boo ñëwee di jaar ci sëñ bi sëñ bi jël ko taxaw ma fan. ba miin du ko jël ku ko jox ko ci daar yi ma jox ko ko mu jàngal ko waaye nag comme laaj bi sëñ Fallu laajoon daa ko yow laaj bi ma laaj nii daa ko dañuy xaw a dugg ci sëñ Tuubaa jël la xamaa ba ma fàtte laaj bu dugg waaye laaj bi dugg day dugg day fekk si waat waaw dugg laaj mooy sëñ Fallu fa nga ko bàyyi woon ak ñun fi ñu toll léegi mhm. ma dama laa waxoon ne léegi bàyyi dafa taw bu ma taw muy sëñ Cheikh Say mhm. fa lañ tolloon waaye dama xuus ci sëriñ bi waaw li tubaab di wax euh, entre entre parenthèse mu nag ba ëpp waaw waaye nag bi nga xam bàyyi na fi euh, sëñ Cheikh Say mhm. sëñ Cheikh Say wax dëgg yàlla daa daa di na ko ndax moo fi indi ne ma damaa bëgg ndax man ma jógee njëre mokkal jox sëñ Cheikh ba sama kay bi njëkk bi daal yéen ñaari xam ne moom laa jox moom sëñ Cheikh Say damay bën belal ndax man dafa yoroon daara belal dafa jàngale moom suñu ceex say daara mag la yoroon foofu waaw xam na wala yi dawuñu yolaan daw def daa ko ñetti wér nit daara ji mag la woon ñoo jox ñaari seen daara yi mag ñuy man nag mu am ko ma boole ci ñoom kenn ko mag ña ñu wax suñu Yaxya Demba toxal ma ci moom ma koy ma fa jàngale am naa fa ñaar at suñu sa dooko làqu ba suñu la ma indi fii ne ma nga bëgg nag liggéey mais suñu sa yoroon xam suñu toog digaloon nga nga dem ndax ginnaaw man la fi bàyyi bëgguma dara lu ci sooxe te du ko ñoroon lool ndax suñu toog digaloon mm-hmm. yow nag ginnaaw sama cër nga te jàngal naa la yar naa la maa bu nga dem da jàpp ci liggéey ba moo moo waram ma fii man nag ren laa fi am fanweeri at ci daara ji ci daara ndax kii laa fi ñëwoon 92 laa la ñëwoon mm-hmm. ba léegi yaa ngi fi nekk di jàng ba léegi maa ngi jàngale mm-hmm. lu bari ci ñu bari tam ci ay ñun ñu bari sama loxo lañ mokkale waaw maa ngi jàng ba mokk alxuraan mokk defat waaw waaye nag bu laa xamal ne maam liggéey bi laa fo ko suñu sama bàyyi woon sëñ Cheikh Say ba mu ñëwee da koo sof ba yokk ci loo ni wax yàlla ñëpp kawe nañ ci rot macha allah maanaam yokka defaraan na daara ji ndax daara ji suñu sooy bu dëgg la tabax tabax la woon waaye sengal nga xade woon moom sëñ Cheikh moo ci ndigalam taxawaayam ci liñ ko def daara ji lépp fi léegi lépp terrasse la ko ñu defar lépp mu joxoon ndigal sëñ Samat rakam sëñ Samat bi mu yoree ONC eh, bi waaw dama dama dama day am liggéey liggéey bu rëy léegi mm-hmm. yëpp moo fa defoon mm-hmm. ak mbaar mee ginnaaw bi dañ jox ndigal ku ñuy wax Baara Gaye taalibe Sëriñ Cheikh Say la moom tam mu mu yeesalaat mbaaram mi daara ji ak euh, pinturaat karo daa fi def woon ak ci yi nga waaye bu ci biir mook mbaar mi àndoon si son moo ko defoon bâtiment bii ngir sëñ daan dëkk ko nii étage bii ñaar yëpp Baara Gaye moo def dispensaire bi fay ñu faje fi su ku nekk waaw waaw ci la bokk waaw ah, barke moo ko mooy ba ci biti c'est-à-dire boo bokk ci boobu moom waa kër ñu ah. ñoo la ko seen seex def ndax seen bàyyi ndax foofu jàkka woon ma doon jàkkee suñu sooy njëkk ji ah. suñu sooy fa laan jullee muy dund dafa mel ni sëñ Moussa Kébé moo ko yeesal waaw kay suñu seex jox ndigal dafa seen bàyyi ginnaaw seen bàyyi ma ji mhm. kon yéen ko yéen ko yeesalaat ñu ko def ñoo ko defar noonu waaye li ma bëgg wax daal mooy mhm. suñu Cheikh Seye kon yokkaat na daara ji ci liñ ma gis gis si bët nii moom dëppoo jamono ci taxawaayam yokk nañ daara ji ci indi fi ay jàngalekat ndax man mi man moo fi indi ak ñeneen ñoo xam say leen jàngal leen fi ñoom tam ñu renforcer daara ji ñoo xam ay talibam lañ mu leen indi leen taxaw leen yar leen jàngale ba mokkal mu indi leen ñuy jàngale kon yokk kon yokk na ko ci li ma ci li mën a gis nii waaye yokkal ko tam ci jàngalkat yi ñu ngi njàng mi gën a baax gën a gën a kon daal la fa suñu sa bàyyi woon daal moom suñu sax tey da ko yokk bu doon bu sa bàyyi na fi tey ci misaal téeméer mm-hmm. moom yokk yokkal ko ba ñeent téeméer loolu mën naa ko seere dégg nga ba pare tam mokkal gi mokkal gi ba léegi xale yaa ngi mokkal mokk rafet ndax ñun daara ji par kii la ñuy tari weeru baraxlu mm-hmm. buñu ci dañ leen def tari waaye du doon tari xumb yi xam ne woon kenn kenn ko yëg sax même xale yi seen ba seen baay seen yaay dañ tari ba àggal duñ ko xam sax déedéet duñ ko xam duñ ko kenn ndax di di di ak xum-xum ci am waaw ñu ngi ci biir daara ñu ñu leen téyel rek ñu tari ku ne tam ku ne tam ka nga jàngale doo ko téyel kenn koy teelal ndax mu gën a xam nga ki nga jàngal moo ci moom seere bu ne <laughs> kenn ko kenn ko jàngalaat kenn ko téyelaat ku xam ne jàngalu ko woon. mu door a taay mu doog waaw mbokk ba bëgg wér. Mhm. Euh, diplôme am shahadam ah, nga xam daaw rek ci koor ak baraxlu ren yi ñu génn nii rek. Mhm. li tari mën na mën na fa ko juróom. waaw kon daara maa ko ñuy dox. Mhm. daara jox at mu nga gën fa ko juróom ba fa ko ñeent. foo ko rek ab jéego la ndax waru war daara Sénégal yi mën a gën a euh, ci biir daara ji euh, jàngalekat yi bu ñu leen doon xayma dina toll ci ñaata nit ñoo xamante ni ñooy jàngee jàngalee ci daara ji waaw jàngalekat yi mag yi mag yi ñoo xam ñooy mag yi moom ñoo fi jàng mag yi moom lu mu néew néew moom mën na fukk moom waaw fukk mën na ko mooy mag ñi mag ñi nag ku ci ne daa am ku la ñun la bootalal mm-hmm. xam ne waaw macha allah ñooña dafay dafay dafay ñëw ak mag jàng ci jàng ci yeneen daara bëgg jàng xam-xam ndax fii xam-xam dafay am ndax fii moom ba fi may wax yow téere bu fay andi bu maa doon tëral la ko ci xam-xam rek min min bi jigéen da jor boo ñëwee njàngal la ko ba léegi kon xam-xam bi ba tey mi ngi fi téere bu fay andi ñu tëral la ko kon ñenn ñi xëy na day jàng yeneen daara jaar ay kokke wala yeneen daara waaye nag xëy na bëgg jàng xam-xam ñëw fi ak mag mokkal nañ ba ñëwee itam day jàpp ci liggéey bi ñooñu dañuy botaleen ci keneen daanaka yoo xam ne fi la jànge yow tam yow jàng boo xam ne yaa jàng mag bi tam xale yoo xam ne yaa jàng ba mokkal tam ñun donc ngeen toq dañ jox ay gone leen ñuy jàngal ndànk ndànk leen tàggat ci jàngale kon daal noonu la amul ñu fi ñëw di jàng di ñibbi maanaam moo xam mag wala gone ah, bari na lool sax waaw ah, jàng ñibbi bari na fi moom wax dëgg lool waaye nag ñu toog ñu ëpp mhm. ah. ndax ñi nga xamante ni dañuy jàng di ñibbi euh, ndax euh, seen mokkal ak ñi nga xamante ni dañoo toog ci daara ji miin daara ji ndax dina yem déet xam nga jàng nag moom la ci kenn tane ki internet féete daara ja bàyyi ndey ak baayam xam ne dugg télé yaag waxtaane jigéen ñaag yëpp moom yem na ko ci mi ngi daara toog ay du gis baayam du kooku ñàngam moo a dëgër ndax ñàngam moo gën a moo gën a sax sax daara ji bu bokkee ki jàng ñibbi ki jàng ñibbi moom dañoo xam ne dañoo xam ne xale ñibbi moom loolu des moom bu <laughs> gënee bitib yàqaar ko <laughs> moo tax ñu wax togg daal mu bokkut ak ki togg daal waaw mhm. macha allah di fàttali ñu ngi ànd ak Serigne Mbacke Jaxate euh, fii ci daara yi Serigne Souhaïbou Mbacke fii ci Touba seen rajo FM fas yéene ànd ak yéen di leen ko dégtal fii ci Touba Serigne Fallou mu mel ni ñu ngi waxtaanee li nga xamante ni moom moo di daara te ku wax daara tudd Serigne Souhaïbou ndax kenn ku ne xam na ni Serigne Abo Mbacke Souhaïbou fii ci Touba ñëpp miin nañ daaram ni ko Serigne Mbacke waxee ndax bari na ci ay kilifa yoo xamante ni tey ci daara ji la ñu génnee bari na ci ñoo xamante ni tamit ay ay borom xam-xam lañ yoo xamante ni boo leen déggee ñuy wax rek nga xam ni euh, sëriñ Sohaybu bu Mbàkke moo leen defar euh, ndax defar googu nga xamante ni sëriñ Sohaybu bu Mbàkke defar na ko ñenn ci ñooñ daara moo xam ñu fi jugee di dem di jàngi la jiwaat wala ñoo xamante ni sax tey ni mu ko waxee bari na ci ñoo xam ay imaam la ñuy doon euh, jàngat bi ngay ciy dolli ci bala ndax li ñu war a am ci waxtu bariwul jàngat bi nga am ci wax ji nga xamante ni sëriñ Mbàkke wax na ko a jàngat bi de mooy eh, man eh, firnde yi da cee bari. ba fi ñu toll nii weeru koor wuñ dugg. nit ñi luñ wumpale wumpale daara ji. sëñ sooy bu moom dana saf sap sapp sapp ci ci ci ci ci ci naafila naafila yeeg ak ak rajo yi ak télé yi. waaw ndax fi ñu nii am na ay ay média ci ci la ñuy yëngu ñoo xëy daanaka. am na ay ustaas yi fa daan nekk daana génn di critiquer eh, nu mu tuddati naafila yi waaye dafa mujj moom ñu ne ko léegi sax bu waxtu sangam jotee yow del joxe naa fi léegi xam naa ci ñett ñoo xam ni ci média yu mag yi lañ mas nañu fee am ay jafe-jafe yoo xam nii ngir jéemoon a jéem a kii naafil ak sëñ son waaye daa mujj ñoom dañ ko ne fu huit heures et demi jotee vingt vingt heures na joxe naa fi léegi balaa sa émission diine jeex na joxe naa fi léegi tey gi ñaata la waaw loolu moom dañ ko def nga xam ne fi mu toll nii boo demee site internet yi bu weeru koor jotee ba fi man am na ñoo xam ne nii dañ wallahi azim dañ ma ko yónnee te Europe lañ nekk maanaam fan fanweeri naafila yëpp nga xam ne nit ñi diine ni ñuy jàngee diine ci sëñ sooy bu ci weeru koor xam nga lu ñu yaafus yaafus waaye weeru koor moom danañ fàttalikuwaat sëñ sooy bu baax loolu ci produit yi la bokk imaam yi Sénégal yi nga xam ne ci yoonu murid lañ bokk tegtal la ci sëñ Cheikh Awa Balla Guèye moom it animateur la ma nga nekk fee ci Touba kii moom moom da koy tiitaroo sax far da koy tiitaroo fi mu nii am nañu bari ñoo xam ne xam naa leen moo leen doon tëralal fee cee Parcelles Assainies unité 15 te fi ñu toll nii ñooñu bokk nañ ci ñuy waxtaan ci rajo yu bari bari moom produit sëñ Soyib la mu dem foofee jàngale ba ñu yor ay émissions yi diine yoo xam ne boo déggee ñu làkk arab da nga naan ñii fuñ génne te moom génne wuñ fenn fudul fii produit fii la boo ko defee loolu daal xam naa ne ab jàngat la buñ ci am ak it yar biñ yar euh, euh, kër gi kër gi ci bopp laax wax kër gi yar biñ ci yar yar biñ yar kër gi ndax maa ngi ko doon wax sëñ sugub rek démb dama dugg ci kër gi euh, wax dëgg yàlla ba dem ci ñaareelu kees ga fan farañ fekk sëñ Moustapha ñoom ñu toog amaat naa beneen yëg-yëg may am fi ñetti fan di dem ak ñëw léegi laa ko laaj mu ne ma mu ne ay soxna am nañ fi ma ne ko ma ne kon damaa jàngat ne kon dund gi sëñ Tuubaa dund dund ci njaareem laa gis fii ndax fii moom maanaam ni mu ko tënkee ne na naan yàlla mën naa dogal ñu dem ba incha allahu uh, am na xalaatu uh, andi fi ay soxna yoo xam ne dañ jàng waaye ba dañ dugg seen i moroom yi soxna ay maam jaara jàngal leen bañ ngeen dem te kenn du leen gis loolu ci ci ci tàggatu Cheikh Ahmadul Xadim boo xëy ni sëriñ sooy bu nàmp na xam naa ne li ci solo mooy li li sëñ sëñ Abdou Samad di wax naan bi sëñ sooy bu demee ci sëñ Fallu am mook sëñ Abdoulaye xam naa ne am lu mu doon kii pour mu dem Dakar yooyu ma an ko amarum amarum ngookaa mi uh, lu muy wut fii da sëñ sooy sëñ Abdou Samad daal ne Amar Ngookaa mooy mooy koo xëy ab nenam kenn mënu ko teg bët sëñ sooy daal ne ko yow dox waru la ndax li nga xam ne suñ way juróo dana koo digaloon yow mii yaa ca ne yow kon kenn waroo seeti kenn dañ war a seeti mooy kon xam naa li muy wax gone yi nga xëy dañuy nekk ci internet maanaam ni nga xam ne maanaam seen seen xel mi seen xol bi ak suñu jubluwaay maanaam ni ko njàng mi lekkee nga xëy du ca desal dara njàng mi du amu foo des ndax nit moom maanaam dañ ne ab kaas boo ko te feesut bu nii ni dañ naan la xaaj be xaaj bi ngelaw la ñu ne la déedéet xaaj bi du ngelaw ndox la ñaar ñaar yëpp am bu ko defee fekkee dem ak ñëw dem ak ñëw benn xaaj mën naa nekk ndox benn bi nekk ngelaw waaye bu fekkee daaj dañ ko duy ndox mam fees benn xaaj dut fa des xam naa loolu sëñ Mbàkke jaxat incha allah xam naa ñu bàyyi ko moom mu tënk ni ko kee euh, ko defee incha allah ñu def ñu yëkkati jotaay bi macha allah euh, sëñ Mbàkke am na sax euh, lu ma la bëggoon a laaj daara ji mm-hmm. waxtu wi ñuy jàng ak bu dee daara ji dañuy yelwaan ban waxtu la ñuy yelwaan ak bu dee fii lañuy ñuy nekk complètement waaw jërëjëf daara ji 4 heures du la ñuy yeew 4 heures du matin 4 jàng dañuy jàng ba 7 heures leer ñu bàyyi ko ne ñu tëdd na ñaari waxtu noppalu comme dañuy teel la ñuy ndax neew da baax neew ci nit mbéjax dani mbéjax dani nelaw yi néewal ko neexul ci yow nga far ko bay it yàlla bind ci yow dafa aw ngay nelawi loolu mënut ma <laughs> ko wax nelawi néewal ko néexul ci yow nga far ko bayit yàlla ko bind ci yow dafa aw ngay nelawit <laughs> dégg nga kon moo tax nelaw da baax ci nit surtout kuy jàng xel yi day baax ci xel mi moo tax bi ñu yeewoo quatre heures du matin jàng jàng jàng ba mu leer dañuy bàyyi ñoom tëdd ñu tëddee sept heures huit heures jàpp na fa dem ñu leen fekk nelaw la ñaar waxtu yeewoo ndékki ndékki moom dañ ko indil kafe ak mburu baaraka suñu baaraka baaraka yi noonu baaraka yi mu njaareem baaraka yi mi tabax kii bii waaw moom tari suñu soxla la mu ngi Dakar moom moo koy mooy waaw mooy top benn oto bu gaari fii wàcce saako mburu moo ngo mu ngoog bu seet daal danañ fi indi ah, juróom téeméer mburu par bis ci waaw da gën a ci bari boo ko defee kon ah. ndékki rek lañ fiy def waaye dañuy. waaw bu moom ñu koy yàllaane waaye nag sëñ mi ngi dox ay jéego pour pour yàllaan wi dakk ñu bàyyi yàllaan wi ndax xam nga loolu nag daa daa liggéey bu yàgg mhm. bisse la waaye sëñ moom mi ngi ci dox ay jéego maanaam joxe ci alalam ay rakam joxe leen ndigal ñu tàmbali ji ñu ñu ngi jokkoo ak daayira daayira yi daayira ci réew ci bitim réew fédération Serigne Souhaïbou daayira yëpp bokk Serigne Souhaïbou bi ci nga bokk ñu ni ci ñu ciy liggéey xanaa ci kaam tuuti ñëpp dañ am kii waaye nag ñu ngi ciy liggéey ñu ngi sore lool sax pour xool nañ mën a jël daara en charge pour ñu bàyyi lépp waaw bàyyi yàllaane waaw a daa laaj daa laaj xam nga nag du liggéey bu yomb ndax bés bu kii la mu ngoog bu ko defee nag ñu ñu def li Serigne Fall wax nii ci lañ sof rek maanaam Serigne Souhaïbou ni mënoon a yar mhm. bañ loolu tax sa góor ak jigéen xam suñu wàllu moom nee na ñoo ne kër gi ñett fan xamul sax fu kër gi ñu féete jàpp na mu ne suñ sug xan fii ma laaj na ko xan fii jigéen dafa amul ñu ko ah am na fekkee waaye da ngeen du gis fii nit nit nit na fi am ci kër gi ñetti weer laax wala at do xam kër yi fa mu féete waaw déet du ci daara ji waaye waaye lépp waaye lépp benn këgg la ci liñ maay këgg la maa ma nga fi am at at wala ay weer doo xam kër kër kër yi féete kon noonu ma doon dundee suñ tuwaa suñ tuwaa itam ki daa da nga ñëw kër am weer doo xam ko jigéen féete lépp ngir bañ jaxase góor jigéen mhm. suñ tuwaa ci njëriñ la ñoo xam ne daa def ñaari ñaari teen ne teen bee dee koo fa séen muy jigéen ci daane bi ma teen góor ñi bi ma teen jigéen ña jigéen gu ma séen ci teen góor ña ba nga dem mu ñibbi te xam li nga doo fa am daan ne teen bi mooy teen jigéen ñi góor goo fa góor goo fa séen ba nga dem ñibbi li nga xam ne li doo ko am hmm. nga xam ne suñ tuwaa bañ tax a tax a góor jigéen la moo tax kon ñii ñi ñi yaakaar Sëñ Tuubaa war nañu wattu ko lool lool surtout ndaje yi ñu bañ góor jigéen di gisante suñ suma bi day taxaw na fii ci biir kees yi séentu seen seen góor jigéen taxaw ci garab gii dégg nga mhm. ca saasa lax de ca saasa la yéen nañu dagg garab ga goro ko moom si ducc dijj waaw dijj di garab ga sànni ci àll ba suuf féetoon kaw a suuf su féetoon suuf féete biti mhm. kon loolu kon moom tam loolu moo kon ñoom leneen lañ kon nag ku leen tuddoo ah ku tuddoo suñu suñu tuwaa nga yaakaar ab murit wa ngaa daw jaxasoo góor jigéen ndax jigéen moo gën a gaaw yàqal ku dox ci yàlla mhm. sëñ Mbacke macha allah euh, am na solo euh, maanaam euh, su ma déggee sa wax mel na ni kon góor ñi ak jigéen ñi waruñoo jaxasoo mu mel ni daara ji am na am na am nañ initiative wala yéene boo xamante ne bëgg nañ tamit soxna yi Euh, di fi jàngee alxuraan ba di mokal loolu nan la ko daar daara ji di boole. maanaam liñ ci bëgg mooy maam xam nga mbaar mi mbaarum teras la loolu yéen a joo ni sëñ bi na bëgg na waaye nag ñu ngi ci ñu ci dox. xëy na bu joxee ndigal kam jox ndigal ko defar sëñ moom li ci rek mooy xool kam ko jox ndigal rek te am taalibe xam ne taalibe sëñ Seex lañ aj aj ji moom suñu borom dégg leen barke tey ku ci woon ku woon kenn na ko tabaxal ma ko ma tabax ko ci waaye nag mbir mooy daa am laaj ab laaj taxaw seetlu xam na koy doxal na koy organisé xëy na ca àggagut waaye yéenam la dégg nga li ñu bëgg mooy mbaaram terrasse mii fi ñuy jànge xam mbaar yoo gis nga ko mbaar mag la ci kaw ñu tegaat beneen mbaar pour jigéen ñi ñu dagg ñu dagg ñu dagg ba bund bund ca mbedd ma nga xam ne jigéen ñi mën nañ jaar foofu dugg ci mbaaram ba génn ba ñibbi jàng ba ñibbi te ñu gisante góor macha allah xam ne su waa ay xale yu jigéen yi mokkal comme jigéen ñi jàng maam jaare mag mokkal proxaan xam dañu mokkal ba génn fa jël leen deen fay ñuy jàngal seen borom jigéen ñi loolu yéene la macha allah loolu lu am solo la xanaa fi ñuy jeexalee suñu kàddu rek ndax daara ji ay tout tànk ñoom ñoo fi ñëw ndax euh, li ngeen di nemmeeku tout tànk yi nga xam dañ leen fii indi ñu dem ba ci yàgg def loolu ñuy wax daw ndax dina fi bari waaw daw moom bari na fi waaw daw moom bari na fi gone yi moom ñëppay daw waaye daara ji am na ci solution sax la bëgg li mu wax mooy mooy li mu wax daal ñi daw ñi daw kii daal bari na daal na dëgg la am ñu du waaye nag waaye nag am ñi daw daal la bëgg am ñi daw léegi ku daw nag boo ñëwee daan la piniir maanaam da nga am pen bu ci bu ci war bu dee koo xam da ko soo def ko xupp noonu rek ko defaatee nag nga dóor ko bàyyi ko noonu ko defaatee nag balay jënga jëngu mhm. dégg nga jëng ba dem ça ci ni aju ci eh, lam rek boo gisee tam ne àgg na ci xëy na man xëy na toog na léegi nga dindi jëng ba ko defaatee nga jëngaat ko ba kenn mokkal waaw waaye waaye nag nga xam ne jëng bi moom defuñu ko ngir toroxal doomu adama comme ni ko yenn ONG yi xeex daara yi wax mhm. déedéet dañ ko def ngir def ci moom xam-xam waaw kay defar ko yar ko mhm. liñ naan suñ suñ li ñu wax ne suñu ma mbay siise di nga daa mos a am kum jëng daaraam xeet ONG yooyu di ko kaas wax ko mën leen dama dama ko bëgg dama ko bëgg a jëng bal ngeen ko jëng yéen te sama jëng sama jëng gën seen seen jëng yi <laughs> macha jaar daara ñu defar ko ni euh, ko li nga de capitaux mhm. da directement <laughs> dañuy public mhm. doo di ko doo ko ku jaar daara jànkat na sa tubaab ñoo koy def mhm. ñu def ñu détourné kees koy def macha allah kon ñoom jëng kon comme ñoom kon ñoom ñoom la ñuy tëj ci kas ci kaso yi loo koy jëng la ma kom jëmm yor jabar yor ay jabar yor ay njaboot ñenn ñi sax dama yàlla ami ah, sët di borom dara ci ci réew mi tur mag ci réew mi dugal ci kaso bi waaw waaw dugal ci kaso bi ay weer mhm. mandat dépôt ba kenn su mbir leer xam nga ci ñu bari yow di ñu tur tur dégg nga kenn tur ci ci waaye nag xam nga mhm. kon la ma waxoon ne dama leen di jéng bala ngeen leen di jéng yéen mooy loolu kon ñun tam daara mhm. day defar waaye jugul ngir toroxal doo adama comme ko yéen ONG yi di waxee déedéet macha allah waaw xam nga nit nit arab yi dañuy wax ne xëy na soxti tubdil masaawiya maam borom bët bu ñaaw moom lu ñaaw lay gis ko xam maam yéenam yéenam mooy lu bon wala lu bon mooy mooy yéenam du xool lu baax la du xool côté positif ba négatif ba lay génn rek kon daal waaw waaye waaye du ko ko gis macha allah macha allah jërëjëf ko xamal la ni daara ji moom wax dëgg yàlla na ko suñu sax bàyyi woon mi ngi yokk macha allah cent pour cent mbaa lu ko ëpp sax mën naa mën mën naa sax 300 pour cent <laughs> dégg nga ba tax na ñoom ñi fi ñoom kilifa sax xam fi lañ jàng mokkal di seen doom suñu Cheikh Abdou Khadir mii am doom ji fi nekkoon suñu soin bu ki mu tudd suñu soin doom ñuy wax suñu jiili def naa moom la jàng mokkal dégg nga nit nag fa nga jàngee bi fotoom kon kon la kon la fa ne woon jugu jugu fa macha allah suñu Abdou Khadir mii may wax yow nii bi fi may wax ñaar doom ñu daara ji ñaar doomam sëñ Saliou ak sëñ Moodu ñuy daara ay doomam lañ <laughs> macha allah euh, jërëjëf mbokk yi ñi doon déglu jërëjëf mbokk yi nga xamante ni ñoo ñu baaxoo di seetaan euh, tey ñu amoon mbégte ak contentement ngir dalal ki nga xamante ni moom moo di sëriñ Mbacke Jaxate sëñ Mbacke waxtu wi dab nañu ñu bàyyi la nga tàggatoo euh, ak ñi nga xamante ni ñoo ñuy dégloo ko seetaan. ah jërëjëf sëñ Ousseynou jërëjëf sëñ Fall yéen itam wax dëgg yàlla dañuy defaat di sant rek xam ne daf ngeen liggéey bu rëy wax yàlla li ngeen def lu ndax seen yéene mooy feeñal lu baax rek ni ma ko waxoon ci njëlbeen ñu xamutoon xam ci ñi xamoon tam nit ñi boo nit ñi maanaam nit ñi naa la ñëpp ñëpp bëgg lu baax nit mu sayre sayre lu mu xaw a nu ko bon ku bëggul baax la li xamal rek mooy bu gisee lu ko baax dama koy def jar na ko lu ne bu gisee lu baax tam jar na ko lu ne kon nit ñi bëri ñu bëgg lu baax xëy na dañoo rek waaye bëgg lu baax kon li ngeen def ni bokkoon ci liy feeñal lu baax nit daa ci déggee nit daa ci déggee gindikoo ci roy ci ngeen am ci tuyaab loolu tax di tasaar lu baax am solo la yonte bi dafa ne man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha falahu ajruha waajur ma xamel biha ilaa ma ku xotti yoonu baax ni ñu roy la ci day da nga ci am tuyaaba kees képp ku jëf képp ku defal lu baax la da nga ci am tuyaaba ndax yaa ko yàlla ba andi tukki waaye nag ba tey ba tey noonu la de sa ba noonu de man sanna sunatan sunatan sayyi'atan falahu wisruha wisru wisru man amila biha ila yawmil qiyamati xot yoon bon ni ñu royle ci lu bon la ci waaye def nga am ci bàkkaat ba ba adduna te kon lu baax am solo kon nag li ngeen def nii ñeen suñu baax dañ ci gërëm di deen gërëm kii organe organe organe presse bi ko muy AFP FM yéen ñaanal suñu borom yokk leen ba ngeen yëg ko ba ngeen amaat yeneen station fa ne ci biir réew mi di ci yaatal njàngam islam njàngam Sëñ Tuubaa daraja Sëñ Tuubaa wax yàlla suñu xoset na baax def ngeen liggéey bu ma am solo ba mu ngeen jëf suñu kon xoset na lool allah macha allah Serigne Mbacke jaxate nekk fii ci daara yi Serigne Soy bu Mbacke euh, Cheikh Mamadou Fadal mu mel ni waxtu yu ñu war jotaay bi mat na lan ngay tàggatoo. waaw tàggatoo de mooy xanaa am mbégte a kontaante ak ñun suñ bopp waxtaan wi soññu nu soññu nanu bu baax a baax a baax ndax euh, foo xam ne boo fa demee moom xam naa ne boo fa amoon fukki minute ak juróomit moom ba ba nga fay jógee xam ma ne boo génnaatee waaye ba nga fay jógee sa ruugi moom dana dundaat mm-hmm. da nga nàmpaat moom euh, am nañ ci yëg-yëg boobu moom te yëg-yëg boobu yàlla mi amul kumpa ci dara moom dana ko xam mm-hmm. waaye euh, mbégte min am mooy lin bokk ci yoon wi ba noppi mm-hmm. gis produit bu bu mel nii ci yoon wi nga xam ne ma ab tiitar la ab tiitar la ab sag la te it dara gënta neex foo xam ne dañ ne ne kii ci njaboot Cheikhul Khadim la bokk lu fa génne ab jullit lay doon xaqan ku lu fa génne ab jullit lay doon te ab jullit nag moom mandarga mu ko mu ko gën ci ah, lislaam amul ab jullit xaqan kon mbégte moom am nañ ko ci Euh, sëñ Mbàkke noo ngi lay jéglu baax ndax euh, euh, yitte ji xam nga ab jàngalekat alxuraan boo ko téye diir lu xaw a jege waxtoog nangam waaye nag gannaaw lépp nuy gannaaw danoo waroon a jàngale te mënuloo jàngale bu ndikkee la nga xam ne mooy suñu war gar te yaakaar ko xam ne koo xam ne ni bëgg ngaa liggéeyal yàlla daal am na fees mën a liggéeyal yàlla foo xam ne nii képp ko xam ne liggéey nga sa sa wërsëg bi ba mu leew la mel nga koo denc foo xam ne bu ëllëgee du maxe du fagg muy muy toolub lislaam toolub lislaam nag benn bu ci weesu alxuraanu yàlla ji moom gisuma ko foo xëy ni wóor na ne lii moom boo fa toogoon bu fi seexul xadim nekkoon léegi ci kanam dana la fekk boo fi fekkul muy muy daare alxuraan képp koo xëy yor nga wërsëg woo xëy ni yaakaar nga bëgg nga bu ëllëgee boo jàkkaarloog yàlla mu fayee la ci loo xam ne nii moom mën nga ci mucc muccuk àdduna goog alaxira moom ak dund fa dund gee dul jeexee ku fa bëgg a am wiiw wudul jeex toolub lislaam a ngi nii moom ñoom nag yàlla da baax a baaxee duñ génn dem fen ndax seen métier mi da leen a tere ñuy génn ka doxee ka dem fenn duñ tàllal kenn loxo képp koo xam ne yaakaar nga ne yàlla am na dara sa war sag daal tool buñ mën a jëmbatale yàlla ngi tool bu baq bu tooy xëpp xëpp xëpp te lépp lu fi nit ji dana sax incha allah rabbi kon fii mooy daaray seex son ayibu mbàkke ibnu cheikhina ahmadul xadim ki nga xam ne moo jiital liggéey bii di sëriñ Cheikh Mbacke moom sëñ bu mooy kilifa kër gi sëñ Mahamadan Bousso mais boole woon noog sëñ Mbacke jaxati mi mu dalal nu nu doon jéem a jéem a xool luñ mën a defal sëñ Tuubaa loo xëy nii ci pas-pas lay ànd ak yéene soxna penangaan sugu mi nga xam ne moom mooy directrice rajo bi amoon ndigalal a joxoon ndigalal balan fee génn nan fi génne dara bala noo génn kër gi nan fexe ba génne fi dara yàlla nag baaxee na noonu ndax euh, dafa mel ne bu bu boo demee benn yoon ñaar yoon ñetti yoon bu fekkee sa cër sa cër dafa yaa nekkul mën ngaa xaddi ba dem waaye yàlla dimbali nañu boppam ba notal nu boppam ban man fee toog ba jële fii lu mën a jëriñ nit ñi àdduna ak àlaxira noo ngi sant wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf Cheikh Mouhamadou Fadal Ndiaye jërëjëf Serigne Mbacke Diakhaté euh, macha allah euh, kaddu yi mat na matale waaye ñu jaajëfal bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoo coordonné liggéey bi Serigne Wadane Sougou mi nga xamante ni moo coordonné liggéey bi ak Serigne Cheikh fay ñoom ñëpp ñu leen di jaajëfal bu baax. di jaajëfal bu baax a baax a baax Penda Ngane Sougou euh, di leen jox dox daje incha allah beneen kër ak beneen bara jërë ngeen jëf.